léegi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم gannaaw ba ñu leen nuyoo noo ngi leen di siyaare di leen ndokkale ci weer wu tedd wi muy saaru muharram di leen ci balu xaq te di leen ci bal xaq ak mbooleem ñi ñuy déglu ci ak di ñu seetaan ci seen télévision Touba Vision muy téléspectateur yi nga xam ne ñooñu safoo saa su nekk dina bàyyi xel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 mbokk yi ñoo ngi amaan mbégte dikkaat ci hinda sikri saalihiina rax ma muy fàttaliku gaa yu baax yi day tax yàlla wàcce yërmande te wa sakkir fa inna sikri tanfahul mu'miniin ñoo amaan mbégte lool nag ci jataay bii ñu amaat ak yéen te duñ ne mooy guléet ndax yàggees na koo def jëme ko ci siira cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikhul xadim awalu xalifatu cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul fi tariqatil muridiya fi tuubal maarusa cheikh Mouhamadou Moustapha muy xalifa bi jëkk ci xalifay Serigne Touba jëkk fee toogeeb jataayam jëkk ko fee wutu jëkk ko fee sumbal liggéey bi mu bawoon gannaawam ba teg ko ci kanawaa boo xam ne booba ba léegi ku ñëwati rek da ngay sof mu moom lañ leen bëgg a wanale ak portaleem ci ab dayoom ci juddoom ci li nga xamante ne si it mooy am njàngam dib yaram waaye it ak tarbiyaam dig taalibeem ba ci ak xilaafam kon loolu mooy résumé li nga xam ne mooy portale bi Cheikh Mamadou mustafaa mi ngi feeñ ci diggante ñaari waajur yooyu ay sarif lañ wetoog ndeyam ci ndaam wetoog baayam ci maam maxaram muy ci Mbàkke Cheikh Amadou Moustapha soxna Aminata Lo ibnu Tafsir Makhtar Binta Lo ca ndaam ñoom moom mooy waajuram ku ñuy wax soxna Xadi Maam Jóob di doom ci sëñ kokki njaga isa bu maxtaar walla bu euh, ki nga xam ne mooy maxtaar ndumbe ci kokki seexul xaddiim di waajuram kooku rek doy na présentation ci jëmm juñ nar a waxtaane di waxtaane ak baaxam mu ganee jamono ci diggante ñaari waajur yooyu ci dëkk bu ñuy wax Daaru muy kër gi nga xam ne mooy këru jàmm gi ko sëñ Tuuba tudde muy dëkk bi mu njëkk a sanc gannaaw ba mu jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol dëkk bi mu njëkk a sanc mooy Daaru Salaam yi la ganee jamono ak ganeek jamonoom nag ci weer wii la am na ci taarix ñu wax ne benn fan ciw tam xarit la ganee jamono ca ñetti fan ya lañ ko wax Sëriñ Tuubaa am na ñu jàpp loolu am ñu wax ne ca ñetti fan ya la ganee jamono ca fukki fan ya ñu jox ko ci li nga xam ne mooy aw turam waaye sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ne jëlee na ci Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké mu wax na Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi ganee jamono fukki fan ak benn ci muharam fële nga xam ne mooy ci Darou Salaam ci atum 1306 muy atum junni ak ñett téeméer ak juróom benn tolloog le 17 septembre 1888 loolu mooy taarixu milaadiyam ba yàlla dogalee loola xew fekk na sëñ Touba mi ngi wër Touba ba 1888 jeexee bañ dugg 1889 ba àgg ca mois de mars ba yemoo ca ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab ci la rakkam jagane jamono Cheikh Mamadou Fadal wax nañ ne Cheikh Mamadou Moustapha bi mu ganee jamono jamono jee fekk na ba ñu tëbaskee ba am ay fan la sëñ bi génn Daaru Salaam te tëgguwul kenn doon wëri barab bi ko suñ borom tegtal muy tuubal maarus bi nga xamee ne yàlla dem na dogal na sëriñ tuubaa dem di wër barab boobu jamono jooju taarix wax na ne ci la seex muhammadul moustapha ganee jamono waaye bi ñu xamul fi sëriñ tuubaa nekk sëriñ Mamor mu soxna jaara bu sa magi mag wax nañ ne moo ko tudde boppam jamono bi ñu gisee sëñ Touba nag la ne ko kat ab jant fenk na fa ci jamono jii ñu leen tuddal waaye ñàkk gañ leen ñàkk a gis moo tax ma jël ko tudde tur wa sama bopp ne ko yow de loo def rek daje nag muy doon digalal suñu borom waaye nag dama niseeroon ku ma am tudde ko sama sang ba sallallahu alayhi wa sallam ma bëggoon nga abal ma tur yi daa di koy tuddee yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa àggee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci rakkaati gàmmu ci atum 1891 yemoog 1309 di atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent ca la rakkam ju tedd ja Seex Mamadou Lamine Baara gane jamono ba nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gane na jamono nag ba ñu demee ba àgg ca ñaar fukki fan yi ak ñaar ci weeru koor 1892 ca la soxna Aminata Lo waajuram ba génn jamono ci guddik wala bëccëgu talaata ci guddik àllarba ñu denc ko ci liggéey bu mag boobu nga xam ne ak jaayante la woon ci diggam ak seexul xaddim wax nañ na jamono jooje seex Mamadou Lamine Baara ay weer yu néew la am fekkoon na seex Mamadou Mamoun moom maam seex Anta waajuram teel a génn àddina sëliñ Tuubaa jëloon ko joxoon ko soxna Aminata Lo mu boole ko sëñ Baara Yoro ba diir boobu yi mu génnee jamono nag jaar nañ ci loxo soxna Awa bu sa waajuru mu Mamadou Fadal wax nañ na gannaaw bi sëriñ Touba jël sëñ Baara ak sëñ Modou Mamoun jox ko soxna Faati Balla mi nga xam ne mooy maami sëriñ Modou Mamoun Mbakke boole ko xar mu jigéen jox leen jox ko ne ko dee ko rat di leen ci jox ci jamono boobu wax nañ ne ñu nekk fab diir ba suñ borom dogal loolu la ñuy wax wàccee ñu wàccee leen at moom yi yemoog 1310 di atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ci la daje woon nag sëriñ Touba demoon gànnaar ci déwén sa di junni ak ñett téeméer ak fukk ak benn muy 1311 ci hijriya wax nañ ne seexul xaddim ci la doon tàmbali jihaatam ju réy jooj yi mu nekkoon te ko doon junj bi nga xam ne suñu borom dogal na nag yooyu yépp jàll bi mu demee ba mata dal jàng alxuraan moom Cheikh Mamadou Moustapha booba fekk na sëriñ Touba sanc kër gii nga xam ne mooy fii jumaa ji nekk tey te sajaratu saxaada nekkoon fa muy béb ga bi ñu ko defaree ba pare ci jamono joojee Serigne Omar Mbacke ngal moom sëriñ Ibrahima Mbacke Kajoor ak soxna Penda Buyo moom wax na ne moom lañ njëkk jël indi ko ci mbàkke mbàkke bu maaseel ci sëriñ Touba ndax sëriñ Ibra Mbàkke Jor daa xëy benn bis rek takkalu fas wi jël sëñ Omar Mbàkke teg ci soxna Penda bu ya laaj ko ne ko lu xew mu ne ko dama koy yëti ka nga xam ne mooy magam ja di sëriñam mu ne ko ndax sañ naa caa boole samay takkaay mu ne ko bu la neexee mu daal di jël takkaay ya boole ca ñu indil ko sëñ tubaa booba at yi néew na lool bi mu ñëwee tàggoowut ak sëriñ Touba moo ko daan indil der bi daan ko duyal ndox mi ak yónneen yi nekk ci biir kër gi moo ko ko daan doxal di tëdd ci néeg sëñ bi moom sëñ Omar Mbàkke Gelongal wax nañ ne benn bis sëriñ bi woolu na sëriñ Mouhamadul Moustapha ak rakkam ja Cheikh Mouhamadul Fadal bi mu ne leen nuyoo leen ak seen mbokk mii parasante ko sëñ Omar Mbàkke gelongal ne ko Moustapha xam nga loo bokk ak omor mii mu ne tekk mu ne ko sa baay la ci man waaye sa mag la ci wetu ndey mu waxi Seex Mamadu Faadal ne ko sa baay la ci man waaye sa nijaay la ci sa wetu ndey jamono jooju soxna aw bu sa xëyis fa doon fa indi ab laax laaxu basaab wala laaxu caaxaan bi mu dikkee ba teg ko ci sëñ bi sëñ bi nuyoole ko ak sëriñ Omar Mbàkke gelongal xamal ko li ñu bokk ci kokki ba soxna Awa Buso demee sëriñ bi woo leen ñoom ñett ne leen man ngeen a dem xéewlu andil leen raxasu mi sottil leen ñu raxas seeni loxo tiim bool bi tàmbuli xéewlu muy sëñ Omar Mbàkke gelongal ak Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal Sëriñ Tuuba àndatu tuuti ab diir dem toog foofa bi nga xamee ne suñ borom dogal na ñu xéewlu ba noppi Cheikh Mamadou Fadal ak ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Moustapha wax ko ne ko gan gi mu ne Mbàkke ñu ne ko demal wax sunu bàyyi ne ko na ñëw jël ndam li sëñ Omar Mbàkke daal di dem bi mu demee na ko bàyyi sëñ bi mu ne ko bisimilah mu ne ko gone yi nee nañ nga ñëw jël ndable mu ne ko dañu la yónni jàpp ci loxo bi waaxu waaxu mu dëgër dikk ne ko kii bu leen ko yónneti ndax seen kilifa la daan na ko nag tur woowu yi nga ma woowee dégg naa ko waaye tur woowu maag yow ko bokk waaye moom nga doon ci ñii bu leen ko yónneti dégg ngeen li ma leen waxa ñëpp ñu maase ne ko waaw sëñ bi yeewi leen ñu war a delluwaat ci kër ga bi nu jógee ñu xool ko ne ko gan gi nañ ànd dem mu taxaw sëñ bi joxe ko ndigal sëñ bi xool ko ne ko da bëgg ànd ak ñooma sëñ Omar ne ko waaw mu ne ko ànd leen bu leen tàggoo ànd leen bu leen tàggoo ànd leen bu leen tàggoo te noona la seen xamanteeg seenu jaxasoo tàmbali ba Sëriñ Tuubaa jóge fa dem ci dëru Rahman fa ñuy wax dëru naar muy kër sëriñ sooy bu Mbàkke liy sababu dëru naar yi wax nañ leen ko dafa am dimb gu fa nekkoon ko sëñ bi fa la daan dalal gane naar yi ñu fa daan faral di toog foofee la leen sëriñ Touba yóbbu wutal leen ëllëwooy xànjar dalal leen baasiin miim sëñ Touba ko njëkk a génnee ci gémmiñam mu dugg seeni nopp laata loolu nag mu ne leen mbaa da ngeen nangoo jàng ñu maase na ko waaw Mbàkke mu ne su ngeen ko nangoo day bu ëllëgee dinaa leen boole ci ñey ramoo gaaw gee mokkal ak bañ gee fàtte nag mbokk dana ko dimbalee mbokkam mbaa dëgg nangoo jàng ñu ne ko waaw foofa la leen dalal baasin miim di leen jàngal ba sóoratu yaasin ci jamono jooju nag jihaat jooju mu doon sumb te waaj ko lu yàgg ci la jihaad ja di tàmbali nag di nuyoo te jamono jooju gis ngeen ne jumaay jii ñu def ci daadul xuddoos muy jàkkee sëñ Mbàkke Madina aw waaxira ramadaan la fa daan faral di def lixtikaaf muy fukki fan yi mujj ci weeru kore gi jamono jooju ba mu fa nekkee ci lixtikaaf boobu ci la ko sallallahu alayhi wa feeñoo ak sahabatu rasulullahi sallallahu alayhi muy àndandoom yooyu waaye bi leen sëriñ tubaa gisee dafa tàggoog sagoom sàkku rek nag ndax bokk ci ñooñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ko waxee yonent bi yonent bi ne ko ah fan yu néew day mootee nga nekk xutba samaan weer yu néew ndax doo ko mën a doon amoo ñeent fukki at téema la ko tëbal defal la ko mu ne ko neex na lool baax na lool waaye lay sama yëtte mooy ànd ci ñii nga xam ne ñoom nga àndal mu ne ko ah ànd gi de dana jafe ndax ku ma mas a feeñu de lii nga wax la wax yitteem jépp mooy def ko ci rek bokk ci waaye ànd gi nag dafa am lu waroon a tax mu mën a nekk te loola dutul am muy jihaat tuur deret tuur deret amatul mu wax wax mu ne ko man daal ànd gi mooy li nga xam ne moom laa bëgg mu ko xaaral ma laaj ko sama borom sëñ Touba nee na yónnent bi bi mu toogee diir la ñëw ne ko sama borom da nee na mën naa nekk ci kaw yi sart yi nag mooy ay natt natt yooyu nag képp kuñ mas a feeñu nga bëgg ko boo jaayantee ba ñu teg la ko dangay dem ba buñ la ca génnewul nga des ca te bëgguma it nag ñu di ma jam ngir bëgg gi ma la bëgg ak fonk gi ma fonk ñu teg la ko te doo ko mën def mu ne ko bu ko bakkan bi àttanee muy ruux gi jom ji dana ko mën a dékku te effectivement noonu la ko Serigne Touba def ñu xaymaal ko natt yi ci suratu baqara mi ataani wa xamsa wa samaanina yi tolloog suratu baqara noonu la natt yi toll ñaar téeméeri natt ak juróom-ñett fukk ak juróom te natt bu ci ne boo ko yàlloon waa àddina benn bi duñ dem ba pare nag la ca gën a yéeme yonent bi dana ko ñaari wonk yii nag boo ci def yàlla retiré la ci kuréel gi muy nga wax ko ca kaw nit ñi di ko dégg walla nga jàmbat ko ci sab xol nag yëg ci sab xol ne lii ñu la def metti na xam nga loolu nag ndimbalal yàlla la waaye xol moom mën ngaa nëbbu li ci kaw waaye li ci biir neexut a nëbbu waaye sëñ Touba noona la ko yanoon daw romb gaa ya nga xam ne bañ ko yanee mënuñoo dox ay jéego yuy gudd jamono joojee nag la ñëwaat ci kër gi waxtaan ak njaboot gi ak ki nga xam ne mooy borom dëru nga xam ne mooy bras droit moom la dénkoon njaboot gi ne la maa ngi waaj a dem nag te booba wari nañ ba am ñetti fan mu war faa jóge dem Mbàkke bari mu ne nag tii nga xam ne mooy Omar Mbàkke moom yóbbu ko ci daaray sëñ Abdourahmane Lo daan ne ko Omar boo demee xaar fa sa gaay yi tukki bu néew bii may def laay ànd ak ñoom waaye daanañu danañ la fekk foofe sëñ Omar dem ndam sëñ Fallu ak Cheikh Mamadou Moustapha ànd ak sëñ Touba dem Mbàkke Bari ñeenti weer yañ fa nekk ba weeru safar wi teru la sëriñ tuubaa am ndigalal génn Mbàkke Bari dem Ndar ci wuyu boobu yi nga xam ne woo yàgg nañ ko ko woo te amul ndigalul suñ borom dem te yonent bi nee na ko lépp luñ la teg wala ñu wax la ko soo ca sooboo te gisoo ma rek saytaane dana la jekk moo tax ngant yi mu daan gantu yëpp mu ko daan def ba bis boobu yi muy wax naan xarajtu yawma sabti saaminal asar xidmatil muxtaari fii saxri safar loolu mooy bisu màggal gi bisu dem boobay mooy bisu màggal gi nga xam ne bi mu woo maam Thierno ne ko ñaar ñii laa bëgg nga ànd ak ñoom dem wa boo demee na nga leen yar foofa su fekkee mënu na su mënuwulit fu ko yàlla tudd foofa neex na ma na maa ngi dem maa ngi ñëwaat ngeen añ lu bari sëñ Fallu nettali na ko ci diggante boobu sëñ bi tàggook ñoom génn bisub samedi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ba agsi fi nga xam ne mooy jeewal maam Thierno jël ña nga xam ne ñooy ndénkaan ya andi leen Touba tubaab bi na ko fii moom doo fi dëkk maam Thierno dem Mbacke ñu ne ko duñ dëkk ak yow maam Thierno dem ba ca sawu Mbacke mu dëkk ci circonstance bu méttee méttee méttee méttee méttee borom daru moxti amul moroom ci kaw suuf waaye ndigali sëñ Touba yi nga xam ne fas yéene naa jànkoonte ak moom. tax na ci jamono joojee at mu njëkk mi ci tumuranke la ko dund boole feebaru peste bu metti boo xam ne si bari nañu faagaagal ba am na ñenn ci njabootu sëñ bi ñu wàcc bi liggéey ba foofa lañ leen denc yëf yi ñëw ne ërtal Cheikh Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Lamine Bara borom dëru jàq lool tiit lool ndax lii ko sëñ bi dénk te dan nattob yàlla ñëw ci bu ñëwee te fekk ko fi moom jàppee na ko yaraa nga ba ñaanoon waajuram soxna ay Issatu Diop wala soxna Issa Diop génn àddina ak sëñ Modou Awa Balla ñaanoon na ñaari taawam yooyu génn àddina ak waajuram wu jigéen waaye sëñ borom mujj ci def sa tura aggoon na ci amul fu mu leen tëral am sàq la daan ji lay ko ci biir dugal leen ci tëj ko lalo sajaa dem ci bitti ndax leen wattu ndax ndénkaani sëñ Tuubaa yooyu borom daru muxti amul morom bi yàlla dogalee nag mu jaar ci circonstance yooyu jafe-jafe dund dab ko fa ba yàlla dogal am benn baykat bu nekkoon Mbàkke Bawol bay ba am lu man ñaari saq semb ko tëj ko dem ba nawet bi di ko fi waaja a fekkaat mu déclaré na da koy jaay ñu ñëw wax ko borom Daaru te mu ne laajal leen ma ko lu mu koy jaayee ñu ne ko juróomi téeméer amul leble nag amul wàññi amul maye borom Daaru amaat problème bu gën a ëpp yam amoon ndax yorul dërëm waaye sëriñ ma ndumbe mi sëriñ Touba dénkoon ne ko dundub daara ji teg naa ko ci sa loxo ñëw siyaaree ko juróomi téeméer yooyee nga xam ne moom lañu koy jaayee sàq na mu jël ko dem jënd ko ca wax ne bu fekkee mbaye koy maye duutuma ko ñàkk borom dëru bokk na ci opérateur yi daqoon na bay ci biir Sénégal ba am na ci mbay moom sax prisonnier yi tubaab yi tejoon te amuñu lu leen dundale moom la ñëw doon ko leb ab dund mu lebal leen ñu bëgg koo jox kayit mu ne lu ngeen ci jublu ñu ne dañ ko ciy bind mu ne leen du ma bindanteeg yéen ndax ki mën a fay laay lebal muy suñ borom booba la noppee tàggoog ab dund te loola ndénkaani sëñ Tuubaa moo ko ko teg gannaaw bi étape boobu jàllee nag la ñëw guy ngiraan muy ngiraan nen foofa la nekk ak ñoom gannaaw bi nag mu jël leen yóbbu ci sëñ Abdourahman Lo ba mu fa yóbboo Cheikh Moustapha ak Cheikh Modou Fadal ñu fekki sëñ Omar Mbacke gelongal ak Cheikh Massamba Mbacke Cheikh Mouhamadul Moustapha fukki atam ci la jàng alxuraan ci la dal alxuraan jàng ci alxuraan makkal ci alxuraan bind ci kaamil Cheikh Mouhamadul Moustapha fukki atam kon kooku mel na ne teel naa sotti kon nag woowu tur ñuy tuddee Kamal muy ku mat. Kamal jooje ci fukki atam yooyu mu bind alxuraan mokkal ko ci ba kaamil ba fekk seexul xadim gabon Kamal jooji ku ngeen dégg ñu di ko wooyee matab fukki atam googu yi moom moo ko waral mu daal di sóobu ci jàng xam-xam borom daaru waajuram daana ko gont di ko jàngal bu xëyee dem ci borom sàmm mu jàngal ko muy gont ci maam Thierno ci fànni xam-xam yépp nag ndax ñoom dañ doon ay bibliothèque yoo xam ne dañoo fees dell ak xam-xam ñu jàppoo ko noonu ba juróom-ñaari at yi sëñ Touba def ci Gabon mat mu ñibbi si mil 1902 ci fukki fan ak benn ci weeru novembre yàlla dogal ñu yóbbu ko ndar ba weeru koor ga jege si ñu yabal ko jox ko liberté provisoire mu ñëw sànnoo si woore fa koor ba mu jeex ci juróomi fani koor woore fa koor ba mu jeex mu jóge fa di wëndeelu ba agsi Daaru Salaam ba jóge fa ñëw Daaru nan foofee la wooloo borom dëru mu indil ko Cheikh Mamadou Moussa Cheikh Mamadou Fadal fekk borom dëru li ko ci sëñ bi dénkoon lépp def na ko lim ko ci waxoon lépp def na ko yàlla dogal mu ñëw nattu leen ba gis ne lii la ci bëggoon am na ko mu tàmbali leen nag sësale ci boppam di def ci ñoom ab yar te juróom-benn weer la fi sëñ Tuubaa def 1902 la fi ñëw 1903 la fi sëñ bi jógewaat ci mois de juin ba xuma juillet dem gànnaar ba mu demee gànnaar it wax nañ ne dafa wax ne nañ ko indil Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal ak sëñ Omar Mbacke Gelogal bi mu ko waxee borom dëru borom dëru waajal leen. muy sëñ Mouhamadul Moustapha Cheikh Mamadou Fadal sëñ Omar Mbacke gelongal ak sëriñ ma Madiba Sylla sëñ Madiba Sylla sax wax nañ ne Cheikh Mamadou Moustapha moo ko taggul borom dëru mu bàyyi ko ñu ànd ak moom dem gànnaar ci barab yooyu sëñ Touba nekkoon Sarsara ak Jararia ak Tintu Moxsin ak Xumaag foofa wax nañ ne ba ñëwee naar yi dañoo amoon fànni xam-xam yoo xam ne. Sénégal jutiwul woon ci di fa dem ndax ay tumuranke yu metti te njabootu sëñ biit kenn amul woon sañ-sañ di fa dem muy nag xam-xam yu roqe yu xóot yooyu amul woon ci réew mi sëñ ba nag yóbbu leen fa fekk jàng nañ ci réew mi ba ngacc ñi ci réew mi ñépp mu yóbbu leen fa nag wax nañ ne léeg-léeg sëriñ bi moo leen di woo di leen jàngal yenn téere xam-xam xam xam-xam yi bu ko ko jot gi mayee bu ko ko jot gi mayul xarati naari gànnaar ab yi la leen daan booleel ñu di leen tëralal yenn xam-xam yi ba ñu géeju ca loola benn bi seexul xadim woo leen wan leen genn kees ne leen kees gii de téere yi ci nekk xetu ndeyjoor yi ba ci xetu càmmooñ yi laa bëgg araf bu ne seen bët bi tegu ci gaaw gee mokkal ak bañ gee fàtte maa ko warlu ak yéen moo tax sëñ Moussa Ka ne bambaa ngi leen tarbiye fii fi sarsaara ak i jarjaar ya ni waa lan saara seen xam-xam nag li ñu war a xam lépp ci lu ñuy bind ñu xam ko ak baatin bi sëriñ Tuubaa sol ci ñoom ba loola mën faa toog sëñ bi foofal leen den tarbiya suqe nañ fay fas defar nañ fa ay ay ay li ñuy wax ay curi fu ñuy denc ay fas ci mettit yalwaan nañ fa xiif nañ fa bind nañ fa ay kamin ba ni sëriñ tubaa jóge xumaag dikk fi nga xam ne mooy Jolof bi mu leen di indaale nag bi ñu dikkee foofu moom jàngatuñ waaye seenug tarbiya moom foofa la tàmbalee ba jaayante gi Cheikh Mouhamadou jaayante woon bixtu bu ni watee bil iraada lakkum li kay onsa bi xaraxaada boobu mu waxoon sëriñ Tuubaa leen woowoon xamalal leen boppam ne leen lii fi nekk ak njureel mënu ma yëwu ci dara mbokk ma yëwu ci dara nijaay ma yewu ci dara mag ma yewu ci dara ak jaayante ci tax am ñoom ñëpp ñu pëtti ko jaayante Cheikh Mamadou Faadal ak Cheikh Mouhamadou Moustapha nekk ca loola Cheikh Mouhamadou Moustapha jamono jooje ñëpp gis nañ ni doon doxe ndax ba sëñ Touba waxee loola moom la tàggoog sagoom futti ku dem wut am naawal di takk der gi di soli dal di daw di rooti di taxani di sàkket di def lépp lu ab taalibe bi di def sëqal bopp bi muy li ñuy wax njañ li jamono joojee nga xam ne nag loola xew na ca jamono joojee sëriñ Touba woo benn bis ba mu ñëw ne ko yow nii nga mel loo ci jublu muy sa bopp bii nga sëqal sa naawal mi sa dàll yi mu ne ko bëgg nurug taalibe mu ne ko am na solo de waaye yow nag ci ak nite lañ la doxloo boo jógee nanga dem may yére yi am ndox te wat njañ li loolu mi ngi xewee ci diggante daaru raxmaan ak daarul xudduus sëñ Modou Moustapha ak tàmbali sës ci sëñ bi dina ci wetam di ko dawal ay course ci yónneen yi ak di ko dalalal gan ñi ak mu koy yónni ci réew mi fu nekk mu di fa dem ba noonu yi nga xam ne dem nañ ba àgg ci 1909 Sëriñ Tuubaa yónnee ca Ndaam Daarul Xalimal Xabiir ca sëñ Ndaam Abdurahmaan loo ne ko boo demee ñetti doomam yu jigéen yooyu na ma leen yónnee fii muy soxna Aïssatuloo muy soxna Astuloo ak ki nga xam ne mooy soxna Fatiloo ak ki nga xam ne mooy soxna Aminatuloo bi nu dikkee sëñ bi ne leen yéen kat bi may nekk Daaru Manaan da ngeen a nekkoon ay gone guddi ngeen fa daan ñëw xàmmewuma leen kan moo mag ci yéen ñu ne ko xanaa Fatiloo mii mu ne nañ ko dencal sëñ Amar Fall magi sëñ Omar Mbacke gelogal mu am ci sëñ Abdou Khoudous mu ne ko ci topp ñu ne ko Aminata Lo mu ne nañ ko fasal Cheikh Mamadou Moustapha moo jur taawub Cheikh Mamadou Moustapha soxna Mareema Bintu Moustapha ñu jox ko sëñ Bay Falloo mu am ci sëriñ Cheikh Mariamu Njaay moo jurit sëñ Mbacke Madina sëñ Mbacke Madina moomu bi mu juddoo sëriñ Touba turam abboon sëñ moor Jaara ci sëñ Modou Moustapha moom la jël delloo ko sëriñ Mamor bu soxna jaara muy borom saam sëriñ Mbàkke Madina sëtub sëñ Abdourahman Lo la waaye ñi ngi ko tuddee borom saam magi mag ndax baayam la sëriñ borom saam tudde woon boppam sëñ bi abbaat ko tur bi tudde ko yonent bi ba sëñ Mbàkke Madina juddoo mu jëlaat tur bi mu abboon tudde ko sëriñ borom saam mu ne ko ci topp ñu ne ko soxna Aïssatou Lo mu ne nañ ko fasal Cheikh Mouhamadou Fadal sëriñ Thierno Gelongal nee na moo jur sëñ Modou Mamoun ak soxna mbenn Fallou waaye ba ñu demee ba nga xam ne loola am na sëriñ bi juróom benn téeméer la yëkkati muy can nga jox leen Cheikh Mamadou mustafaa tàmbali sës ci sëñ bi diggante boobu lu ne xew na fi ba jamono jooju nga xam ne nag sëriñ bi 1912 tubaab yi jëlee nañ ko fa war ko indi njëriñam ci ab sabab sababu saahir ak sababu baatin sababu baatin bi mooy yàlla la neex mu yebal ko njaareem ndax fukki at ak juróom yam fa war a dëkk waaye tubaab bi moom ci sabab bi mooy li mu jéemal sëñ bi fii dara sottiwu ci ndax àggoon na ci waxtaali bi ñuy demande ay visa limite yit limite bi fi war a dem boo xam ne si du bu ëppee dañuy jàpp ñooñu di leen dóor ak di nangu seeni yóbbal ca ceyen Jolof naaju tàngi jër amutum ndox amul dara ndax gàllankoor sëñ bi gàllankoor njaboot gi loola nag metti woon lool ca jamono joojee Cheikh Modou Moustapha li dox diggante sëñ beeg tubaab bi pour mu dikk ñëkki njëriñam na ca ña ko dox ndax gis na ne sëñ bi màggat na coono yi bari na te bëgg na mu jege njaboot gi mu daf ci ay relation ci nite gi ko sëñ sëñ sëñ tubaa jàngal kon ku yàgg am responsabilité la waaye ku yàgg la ba sëriñ tuubaa ñëw ci la doon binde wayam yooyu naan raamu masiri ila njurbel la la la sasin law ayyanu sirra maa fi seyri maaramu ndax booba tubaab bi mi ngi jàpp ci mu xelam na buñ ko yóbbuwoo njaareem foofa ñun ñoo fa nekk te am pooga fa ay caaxaana nga fa ay cinéma nga fa ay foowukaaya nga fa taalibe yi danañ jaxasoo ak ñooñu su ko defee leer gi muy def ci ñoom dana mën a wàññi sëñ bi ne leen bu ngeen xamoon day dox bii ngeen di dox di ma yóbbu njaareem lii leen ciy dikkal ëllëg du ngeen ko sàkku ndax man dama fay des ba faw te yéen da ngeen fay jóge mooy bayit woowu bi nu dikkee njaareem ci 1912 résidence surveillée lañ ko yóbbu di muy baagante diggante foofa ak fi nga xamante ne si mooy buqaatul mubaaraka boobu tudd ko ay tool la won ak ub tukkar bi nga xamee ne yàlla dogal na loolu tubaab bi it di ko koñe di sàkk ñi fi ñëw ak di jàpp taali bi di leen dëwee ba benn bis nag jabari tubaab bi bi nga xamee ne sëñ baa ngi fiy jóge di dem bu xaatul mu baarakaaka ñëw mu dikk na ko kër gi maytuñ la ngi génn ko waaye diir bi fi sëñ bi nekk ci kër commanda bi ñiy ñëw di seeti sëñ bi muy jàngkate alxuraan njàng mi ñuy jàng ci kër gi riir mi day xumb ba jabari tubaab bi nelaw yi day yàqu jabar ji jëkkër ji ne ko kii moom nañ fexe ba santeem yi muy def nañ génn nañ ko génnee kër gi mu wut fu mu nekk foofee mu daan dem ñun de ko ko teral nag ñu ne ko tànnalal sa bopp fa nga xam ne fa nga bëgg a dem waaye nag dañ ne ko ñaar fukki nit ak juróom-ñett lañ la may na ñoo fi ñëw léegi nag tànnalal sa bopp mu ne bu ngeen ma ko tànnalee de bëgguma waaye bu ma ko suñ borom tànnalee ma jël mu tànn ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñu dooleel ko ci ñaar nga xam yooyu bu set ñëw kër sëñ bi bi njàngum alxuraan mi sàppee nag jabari tubaab ji bu mënta nelaw ci la ko wax nag nañ ko fi jëlee ndax sama nelaw yi ñu ngi koy yàq fa sëñ ba tànnaloon boppam bañ tere ko ko nag biñ ne ko xoolal foo bëgg a dem bu xaatul moo baaraka googee la tànn ba mu agsee foofa nag ba dëkk fa foofee la woowee ma Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal wax Cheikh Mamadou Moustapha ne ko demal Touba boo demee nga sañ ci kër ca wetu kër gu mag ga fii kër sañ sëñ ma dina nekk tey yabal maam Cerno ne ko demal nga yeesalaatal ma kër ga ci sàkketi seng te wëlbatil ma suuf sa li nekkoon ci kaw na féete suuf maam Cerno ñëw defe ko noona sëriñ Modou Moustapha ñëw defe ko noona sëriñ Modou Moustapha it daal di fay ji li nga xam ne mooy ab teen moo Cheikh Issa Dienne tudde ko aynu rida ñii na mooy aynu rahmati daal di fay def foofee daara ba mu fa defee daara ca fa nga xam ne mooy fa ñuy wax guy texe foofa la sampoon la nga xam ne si mooy jëwriin ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon muy ñii nga xam ne maa ngi leen di bëgg a tudd bokk na ci jëwrin yooyee ku ñuy wax sëriñ Mohamed Silla ñaaxin ak ku ñuy wax sëriñ Souleymane Kebe ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Diouf ak ku ñuy wax sëriñ Mbay Jaw ak ku ñuy wax sëriñ Mbayka ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Touré ak ku ñuy wax Seex Yaaba Diop ak sëriñ Aliou Silla Guèye Banji 1915 ci la amaan ndigal Serigne Touba na ko yaag Cheikh Mamadou Fadal dem leen ci oromi Touba ya bu ngeen demee ngeen wut fa ay barab di fa des di fa liggéey ak ña leen nangoo topp te ngeen di liggéey di indi mu ñëw daal di tànn fi nga xam ne mooy tindoo di ñu koy wax xosnul maab mu daal di koy sanc daal di fay yabal ki nga xam ne moom lañuy wax sëriñ mat si la ñaaxin moo doon jëwriñ ji jëkk jam fa def ak ku ñuy wax Madou Makhtar Ndiaye kure ak ku ñuy wax Serigne Madou Fall Patar gannaaw ba ñooñu jàlle nag la fa yóbbu ku ñuy wax Serigne Ousmane Samb daal di yokk daara ya nag ba mat fukki daaray laxasaay lépp nag lu mu fa mas a am ma ko daan indil Serigne Touba. boole kook di bind ay kaamil yu takku ak njabootam boole kook addiyee di indil sëriñ Touba foofu bi nga xamee ne dem nañ ba 1918 ndax 15 ak 18 ñetti at a dox ci diggante bi foofee nag la dem fii marché Ocass nekk mu gas fa la nga xam ne mooy ab teen nga xam ne mooy fii marché Ocass nekk tey yàlla degal nag teen boobee moom bëriwul woon am ndox waaye kër yu mag yi nag la wut ñu leen fa doon nekkal nekk foofa ci wetu teen ba di ko ko wattal bi nga xamee ne yàlla dogal na teen boobee ña fa daan toogal di fa toog bu naaj wi tàngee dañuy àndatu ba ba nga fa nga xamante ne sii mooy ca ker ga ca wetu guy ga ñu toog foofu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon muy boobi ko Serigne Touba joxe ndigal ba mu dem foofa Serigne Touba daf ko woowaat jox ko ak ñaan ne ko boo demee na ko def ca fa ñuy yaxantoo mu def ko fii nga xam ne tey fi la marché Ocass nekk tey. bi Cheikh Mamadou Fadel dikkee nag la ko yeesalaat tudde ko marché Ocass bi mu ko tuddee marché Ocass di ko woote nag bisub ajjuma waaye teen boobee fa Cheikh doon Moustapha gasoon lam doon néew néew am ndox teen boobee ci wàllu boppam dafa am ñu fa toogoon doon ko wattu bokk na ci soxna yi fa daan toog ku ñuy wax soxna Fatma Makhtar Cissé moo ko fa doon toogal ak ku ñuy wax soxna Aminata Loo Majoom Ndiir moom it bokk na ci ña ko fa toogal ak ku ñuy wax soxna Xari Loo Babacar Loo ak ku ñuy wax sëriñ Fadilu Mbàkke Amar Ndiaye ak sëriñ Modou Awa Cissé ak Alxasan Guèye ñooñu ñoo fa doon nekk doon ko wat teen boobee nag mujj na cata ca dugg muy am watt moo jóge woon fi nga xam ne mooy mbal ñëw daanu ca teen ba ba dee ca ba yàqu ca teen ba mujj di xeeñ ñu mujj bàyyi teen ba ba di ca roote kon taarix bi gudd na waaye dañ ci doon comp tuuti di leen xamale sëñ Modou Moustapha jaar-jaaram ngeen gis ni nii mu mel ci waajtaay lañ ko waajale mu nekk nag référence boo xam ne lépp luy doxal yoon wi dana jaadu ñu dellu ca cosaan la ndax sëñ Tuubaa da koo waajal ne ko lépp lu nekkate ci sam xel mooy ndigal li bu ma laajati dara def naa ci sam xel loo ci nekkate rek mooy ndigal li bokk na ci jumaay tubaab yi mu koy taxawu looloo ko waral kon warees na cee jànge ak jullite war cee jànge ab yar war cee jànge ab taalibe war cee jànge topp ndigal war cee jànge mën a yiir njaboot te yaatub dënn te mën a muñ te mën a dimbalee te yéene ñëpp jàmm ndax loolu rek la téye yoon wi ndax fukki at ak juróom-ñett la téye yoon wi te bi muy jël liggéey bi ci ñeent fukki at la ko fekk kon fukki at ak juróom-ñett yooyu amul bis bu mu ci sànk wala waxtu wala minit walla seconde wala cerse bis bu yàlla sakk lenn lu ci ne ak lam ca war a def def na ko ba ci moom la jumaa yi Touba ji taxawee ci moom la sëñ Touba dikke Touba ci moom la ñu titre foncier Touba ci moom la Touba organisé woo ci moom la njaboot gépp nasoo nekk benn buum te sëñ Touba ko ñaanoon ne yaa rabbi yëj alil muridina maha fi his naka lansini wa sam la ij maha loolu Cheikh Mamadou Moustapha moo ko ci jëkk a taxaw yàlla nag ma booleel sama teel bi yëpp nasal ma leen ci génn buum bu kenn paccat ma Mamadou Moustapha moo ko ràmbale ndax bi mu defee ndigali sëñ Touba yi indi sëñ Touba Touba moo tax Touba nekk capitalu Sénégal Mouridis ndax bu du woon loolu naga fekk na li mun sëñ Touba dañ koy dégg ci réewi tugal ak farloom ak jomam ak niteem ak diplomasim moo tax murit bu nekk tey jii amal nga ko njukkal ci yoonu Touba ci yoonu murit muy Cheikh Mamadou Moustapha ndax li mat a def lépp moo ko def mooy fondation bi nga xam ne jub na kocc waaye bi mu jubalee boppam it dafa ñi ko war a wuutu tañ xam ne ñooy doon sëñ Touba ëllëg ba ci sëñ Muntaxa mi da ko tabax tabaxaay boo xam ne si birig bu ne fa mu war a tegu da caa tegu te wala sax da koy faral di wax ne tegale bu jubee ndab la jiitu moo jub moo tax njaboot gi ko sëñ Touba dénkoon ne ko bu ñu laatu ci dara bu kenn jooy ne sama waajur dafee nekkul moo tax melu ma na ma war a mel di sëñ tubaa defoon ci moom lépp da ko sottiwaat ci rakk yi ko ci Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne ñoo bokk lépp nawloo ko nawante woon nag moom ci jikko ju rafet mosu ko ne maay xalifa sëñ tubaa maa la mag maa la gën a sëñ ci sëñ Tuubaa ñoom ak ci lañ daan jaayante lépp te loolee day fi mu toll nii dafa war a dox te wërta yem ci xalifa général dafa war a dox ci kër sëñ yi ci biir Tuubaa yépp koo xam ne si sa sa sëñ Tuubaa moo jaboote sa baay wala mu jaboote sa yaay doxinu sëñ Modou Moustapha Baye woow moom nga war a ànd ak say rakk rakk yooyu moom lañu war a ànd seen mag ja seen rakk ya seen euh, baay ya ànde seex moom Cheikh Mamadou Moustapha ndax bokk na ci loolu ku ci mat a dem kër moo la sampal kër ku ci war a amub dëkk moo la ko wut li jëndil seenum njàng moo ko taxaw li ko dale ci Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdou Lahat ba ci ñi ko féete suuf ñëpp moo leen taxaw ba bañ bind seeni kaamil andil leen kenn ku nekkit fa nga war a dem moo la fa yabal moo la wutalub dëkk yabal la fa barab ba nga féete ku fu mel ne kàbb gay nga xam ne Cheikh Abdou Lahad la ko jagleloon waa kàbb gay la bind leetar ne leen seen seenum sëriñ Tuubaa ngoog lu mu leen sant da ngeen ko def bu fa kenn jël dara di ko di ko ko weesu la di ma ko indil Tuubaa Kayal mu jox ko Cheikh Mamadou Mourtada gis nga wetuk Saalum gi sëñ Basiiru la fa yabal ne ko boo demee nekkal fa sa baay Daaru Sadir ak Daaru Salaam Daaru Minam Saalum ba ci Poroxaan dëkk yooyu yëpp ci ndigalal Cheikh Mamadou Moustapha ca la ko ame ba ci dëkk bi ñuy wax mbul mbul kayal kon Cheikh Mamadou Moustapha wàcc na ànd ak nag Cheikh Mamadou Fadal boole ko taxawu liggéey sëñ Tuubaa bi ci yar ak i teggin ak li nga xamante ne si mooy ndénkaan yi sëñ Tuubaa yi moo tax maxtu mi mu daan takk wax na ko benn mag ci tayif ne ko maxtu mii ma takk mbaa jëppoon ne ay téere laa ci def mu ne ko ah moom lan foog de mu ne ko defuma ciy téere de ndénkaane sëñ Tuubaa yi ma dénkoon gannaawam ci at yi ma ko war a def moom laa ciy def ba set ma dindi ko xool ko boobaak léegi nag di fàttaliku ma fu ma ci gëmme ba di nelaw kooku ñu ko sarse woon ci mission bari na sëñ Tuubaa jóge fi rek gën a yàgg fi wuutu te noonu yi wéeruñu seen i ngànnaay say bàyyi nekk ci dégg nga ñi nga xam ne ay magi teelu bi lañ nekk fi nga xam ne fekke nañ sa lépp sëñ Touba jóge fi xëccoowoo defoo dara sag nite nga nekk ca bañ tànn la ci administration ba nome la te fekk nome sëñ Touba moo jiitu loolu lépp dëppoo nga nekk ca loola mboddiwoo kenn mérewoo kenn ku ne nga jox ko ab cër boole ko nastal ci taalibe yi ba taalibe yi kenn du jëmee génn di jëm si ci moom di romb kër goo war a jaar te jaaroo fa loolu tax na Daaru Muxti ku masaan jóge ci yoon woowa dikk ne ko man de yoonu daru laa bàyyi mu ne ko ndax jaar nga ci sama baay Cerno ma ne ko déedéet mu ne la boo jógee jaar fa ëddiyee ja nga ko joxoon da la koy delloowaat ne la boo demee jaar fa te bu ëllëgee bu ko romb di ma fekk si fii bu dee wetug Daaru Salaam mu laaj ndax jaar nga ci Baye Seexant ndax jaar nga ci sëñ Abdourahmane Lo ba maam sax mooy confirmation bi bi mu fa dikkee la ne ko ndax jaar nga ci sa baay Seexant ak sëñ Abdourahmane Lo mu ne ko déedéet mu ne ko boo jógee jaar fa maam Abdou ko nettali boppam bëggul fenn fu yàqu ndax booba jamono jii la doon séentu te loolee ba fi mu toll nii ab list la boo xam ne si képp ku fi nekk war nga ko ubbi xool ko ñu di ko rappeler ci jàkka yi di ko fàttali ci ndaje yi di ko soññee taalibe yi ci waxtaan yi ndax loolu rek moo téye yoon wi li coow lii bari bari bari sëñ Modou Moustapha nekkam ngoogee moo téye yoon wi moo tax mag di topp mag bàyyi di wormaal doomam ak di yërëm doomam moo tax kenn ku nekk la nga war a def danga koy def moo tax taalibe yi nasu nekk ci génn buum ku fi toogal sëñ Tuubaa rek ñu dem jox la seen bopp lu waay amit jox sëñ Touba ndax daf leen wan aw yoon ndax jumaa jii mu doon liggéeylu xam ngeen ne jamono joojee metti na waaye nit ak xam-xam ba tey dafa war a dellu siwaat jamono jii nga xam ne nee nañ ci la lépp yombe ci la lépp doxe ci la teel bi ëppee gis nga Touba fi mu ne ni inondation bi mel waaye bu ndox mi ñëwee ba muur juma agsi ci jumaa ji rek da nga xam ne sëñ Modou saa liggéey na ndax fondation bi rek mat na 2 mètres ki gënoon sut ci nit ñi mat 2 mètres bu ma san dugg ci fondation bi ñu koy jox ciment bi doo ko te fondation bi jógaat na lu mat un mètre kaw boo taxawee ci barabu sëñ Fallu escalier bi ngay njëkk a teg sa tànk moom maaseeg suuf si lu loo gën a teg sa tànk gën a jëm kaw rek ci fondation bi la tego ba ba ngay àgg nag ca bu mujj ba door a dugg ci biir daara kamil jooju wuti barabu sëñ Tuubaa barabu sëñ Tuubaa fi ne ni ko nit ñi fooge demewul noonu de dañoo defee ne fi ne boo ubbee jumaa ji rek boo ubbi woon pavillon bi da ngay jàkkaarloog monsieur le sëñ Tuubaa bi déedéet monsieur le sëñ Tuubaa bi boo ubbi woon tey jii li nga xam ne mooy euh, pavillon bi ko wër dafa mel ne ab teen ab kaaw la ci suuf moo fi escalier bi ngay njëkk jot ci barabu sëñ seex moom dafa def dañoo maase ab kaaw lay doon ci suuf escalier ngay wàcce ci suuf waaye booba sóoroon na ne jamono ji dana ñëw gisal ni mu ko ni mu ni mu jumaa ji ci xóotaay ak altitude bi ci kaw ni mu ko yëkkatee ba mat un mètre tey nga xam ne ndox mi lu mu bari bari di dugg ci jumaa ji te ndox mi mi ngi indoode kër yi di ko nangu kon nga xam ne se Moustapha liggéey na sëñ Touba la ko defal bi mu fiy jógee bu du woon guerre mondiale bi dana ubbi jumaa ji mu liggéey ko ba àgg ci foofu waaye diplomatie am ak nite gi ak yeewu gi ak bañ a bodd nit ak kenn ku nekk mu teg la sa place moo tax mu ràñsee ko ràñsee bu jekk boo xam si yoonu mu murit kenn mësu koo yeb ci kaw suuf noonu mu ko def ci ay rakam nag noonu la ko def nag ci mbokki lislaam mi ci biir Sénégal mës ta jëlub tariixa mukk di ko ŋàññi wala muy ŋàññi kenn ñépp ay jullit la leen jàppe woon njaboot ak boppam it mu jàpp leen nas leen ci génn bu wax leen ne yoonu toppante la yoonu seetante la yoonu dimbalante la ku ci mag na ngeen koy seeti yéen nag wute na ma ak yéen ay baay ndax samay baay lañ waxoon ci sëñ Touba bu dañul maay seen sëriñ Touba seeni bàyyi nag yéen lu ngeen leen mag mag mag ñooy seenum sëñ Touba ndax sëñ Touba du leen ma a jur loolee moo téye yoon wi ba fi ne te ci waññi ci benn nga koy tàmbalee xoolal fi mu ne àddina lan moo ko bëgg a yàq ak tubaab bi nan lay toppewaat lislaam di ko dàq muy ay pouvoir lay jël di ko teg ci nit ñi jiite diine ci tàmbalee ko ci xalifa bi ba wàcc ci ñi nga xam ne ñooy topp ci moom ba ci kër gu nekk xalifa ba fa nekk dañuy fexe ba jox la pouvoir ndax xam nañ ne alal moo gën a gaaw a tasaare nit te yonent bi alayhi salaatu waxoon na ko ci xutba bi mujjoon a def na ngeen moytandiku di xëccoo alal ndax bu ngeen ko defee li ñu tabaxoon ci lislaam dana yàqu te tiitu ma ci yéen ëllëg ngeen doon ay yéefar tiitu ma ci yéen bu ëllëgee ngeen di bokkaale yooyu tiitu ma ko de waaye la may tiit yéen bu ëllëgee ngeen di xëccoo dara ja xare xaswatu Uhud lan moo leen xañ powar ba bataay ba lan moo leen ko xañ xëccoo alal loolee yonent bi waxoon nag dafa barkeel moo tax Cheikh ma Moustapha teel leen ciy jiitu tubaab bi keroog bi nga xamee ne nañ désigné nañu Cheikh Amadou Moustapha 1927 ci la 25 su lee ndax tubaa Touba 19 la fi jógee ñu denc ko insiru na ma xaram ci guddi gi mooy bis bi ñuy wote màggal gi la 21 la tubaab bi woote na yéen ñi nga xam ne yéen a mag ñi mag naa leen fa fekk ci ay rakk ñi mag naa leen fa fekk ci ay baay woo leen ci njëriñ bañ dikkee nag léegi mu ne désigné leen ku ngeen tànn ndax mënuma bu ngeen ma soxlaa di ma seet si kenn ku ne mënuma it bu ma leen soxlaa di leen woo kenn ku ne tànn leen xalifa bi nga xamee ne léegi tànn nañ tànn tànn mënuñoo gis kenn kenn ku nekk jàpp na yow fa nga toog yow yaa war a jiite yoonu sëñ Tuubaa yi foofa baatin dugg na fi sëñ Mbàkke bu sa gàccee ngalaama liggéey na fa liggéey bu rafet ba ñu jéemee jëm sottiwul la leen dajale nag wax ne nag nag maa ngi ñëw bi sàngam naa dajeeg yéen ca denis ba ba ñëpp ñëwee yàlla dogal ñu dikk ne ñëpp ñëw nañ ñu ne ko am na ko manqué mu ne kan mu ne Cheikh Ibra Fall ni surtout ñu gis muy mi di ñëw bi mu dikkee mu ne ah man kat damaa defoon ki manqué moom ngeen tànnoon waaye bi mu dikkee moom daa sukk bëti woo moom raam ñëw nuyu Cheikh Mamadou Moustapha jox ko addiyam tubaab bi na kon séance bi jeex na kon bis na ko tey nommé nañ Cheikh Mamadou Moustapha loolu mi ngi tombé ak le 25 juillet 1927 gannaaw bi nag bi ñu ko nommé ba nga xam ne xam nañ ne moom lañ jiital kenn ku ne la nga jàppan la ko bàyyi tubaab bi da ko joxaat rendez-vous ci Touba ne ko dajaleel ma ña fa nekk ñëpp ci ay kilifa te nga jiite leen ne leen danaa fa ñëw ànd ak benn nit ku ñuul wut ab nen jox ko ko ne ko dugal ko ci saag bi biñ dikkee mu waxtaan ak ñoom. ne leen nag gisee ñe nañ sëñ Modou Moustapha mi nag képp ku ko ci fakkatal wala mu wax la loo deful na la wóor ne danaa jëflanteeg yow te xam ngeen ma bu baax te bu mu leen ko waxee waru leen ko weddi daal na jox le ma nen bi waa ji làmb nen bi jox ko ku mu jël ko xàcc ku ne ko tàcc ci suuf mu toj bi mu tojee mu ne leen gis ngeen ni nen bi def ñu ne ko waaw mu ne man maa ko def ñu ne ko waaw mu ne ko ku ma dégg nga am ceeg sëñ Modou Moustapha problème danaa ñëw dal ci sa kaw sëñ Modou Moustapha jóg ca nite ga xam ne lii buntub yàq la mu ne ko ah li nga def de rafet na waaye nag ay bokk lañ te buñ jógee danañ waxtaan bàyyi ma ma waxtaan ak samay bokk samay bokk moom ma ci kenn xam nga kooku kon freiné na ko ndax njiit moo mën a jël décision la mbëgg moo taxaw loola moo téye yoonu sëñ Tuubaa yi ndax bis ne 2003 bii la sëñ Modou Moustapha doon gàttandu loola bokk na ci ak nite bokk na ci ak nite it def wayafal boppam du puukarewu du fëggub dënn ma nga fees dell xam fees dell akub fees dell akub talube nangoo jël ay rakkam di futtiku di liggéey di leen liggéey ku bu ñuy jàng moo leen di jàngal bu añ jotee reer jotee moo leen di sédd ña war a bokk di bokk du leen jaxase ak kenn buñ paree mu jël garam boobam jox leen leen fopp leen lamb jibaam leen seen ëddi yay bàyyi soxna may nee na man yeex na maa xam ne man taalibe doomi sëñ Tuubaa la suñ taalibe bàyyi bi rek laa ko doon wax loola nawante ci nawlante gu rafet te téewul nag dafa bari woon ay noon waaye nit xamu ko loolu nag dafa baax ci guddi yiñ toll muy say noon di la wër di la xeex nga nëbb ko ba ñi ku ci yoonam nekkul lu ci nekk te yoon wi secret bu tase ko yàq wala moo koy bëgg yàq boog nit ñi dañoo dem ba amatuñ kilifa kilifa yi dañoo war a wax ak nangam sëñ Modou Moustapha dañ ko daan jam di ko jam ba benn bis wax na ne bu ma sëñ Touba jurul woon ma nekk xalifaam dana génn Sénégal ak om sëñ Omar Mbacke mii mu ma booleel muy sama mbokk ci wetu ndeyam jiituma ci sëñ Touba sëñ Touba boole ñu ne mu ànd bu leen tàggoo bu du woon looloo bi sëñ tuubaa génnee àddina ba ca déwén sa danaa génn Sénégal di dem ba fu ma yàlla moomee ñu denc ma fa ndax wax nañ ma ci réew mi lu jar ma génn réew mi def nañ ma ko fi te sama der bii bu doon mbuus muy denc ndox bënn nañ ko ba mënatut a def gajànga kon nag xam nga ne daana jànkonte ay coono waaye gëm-gum-gëm sëñ Touba te bañ liggéey bi tardé moo tax daw leen faale daw leen xool mu nekk nit ku ma des nekk nit ku ko koo xam ne si référence la ci képp koo xam ne yaa ngi jiite mbooloo ndax jikko yonent bi alayhi salaam moom la yoroon te it lii xew léegi sëñ Modou Moussa jàngale woon na ko xam nga léegi da ngay gis ku toog ak xalifa baayam respect bi mu ko war a jox du ko ko jox ba jàmbur bi bu bëggee xam dara ci kër gi ci moom la koy jaaree te loolu dara waralu ko loolu alal Cheikh Mamadou Fadal. daf ko moo mook Cheikh Mamadou saa ndax benn bi seex Cheikh Mamadou Fadal dafa xëye ci këram waaxu wuti Daaru Xuddoos mu demee ca kër gu mag fekk sëñ Modou Moustapha donga yi di ko takkal ab néeg mu daal ne ko tey day ñett ma fi indi te bëgg naa ko am tey te ci yow laa ko yaakaar te man dama naan galas duma ca doon dara mu ne ko ñetta yi mooy lan mu ne ko néeg bu ca topp soxna bu ca topp ab lal mu ne ko kañ nga ko bëgg mu ne ko tey tey tey tey tey mu ne ko day jaay mu ne ko loo ma ko jaayee ma jënd ko mu ne ko neema sëñ Tuubaa nangul na la sag bi mu ne ko sëñ Tuubaa nangul na sag taalibe mu ne tekki leen néeg bi yóbbu ko ñu tekki néeg bi yóbbu ko lal farmeka ba ko sëñ dan xariloo wuteloon ca Gàmbi moom la jël sampal ko dem ca kër sëñ Moustapha Fall soxna Jee Fall ma fa nekkoon soxna Seynou Fall rakkam ja fa nekkoon moom lañ lee mu indil ko moo jur xalifaam bi fi toog yàlla na fi yàgg ci wér sëñ Abo kooku mooy Cheikh Mamadou Moustapha fi ma xam ne nag tey fi lay bu mu bëgg a ci murid yi li wolof naan nañ delloo buum ca boy boy ga yoon wi dafa am cosaan dafa am aw yoon yoon wi saxaar la mënta daw ci lu dul ab raay te raay bi sëñ Modou safaa moo ko tëral teg ci saxaar gi jiitu daw ne nii lañ ciy dawe kon ngalla bu ñu dem ba seytaane dinu nu këf li nu boole woon seytaane ñëw bëgg koo yàq ndax saytaane amul ci sëñ Touba buntu te sëñ Touba nee na yaa rabbi ijxalal muridina maha fi his nakal hasini wa sam la ij maha bokk yi sëñ Muntaxa mooy xalifa général di murit nun murit nan delloo siwaat yar bi te delloo siwaat teggin yi ànd kook sëñ muntaxaa ci liggéeyal sëriñ Touba ba kenn du dégg murit bu xeebu bay wax sañ Muntaxa lu ko war wax te gis ngeen ne jamono ji yàqu na ndax buñ toogee liñ ñu doon ñee ak di ñu ko roye ba ñoom ñu téye ci lañu nekk tey ñu dem ñoom roy ñu ci ba bàyyi lañ doon def ñun ñu jël nag lañ jëloon ñun fuñ toll di wax jamono soppiku na sëñ Muntaxa mooy sun kilifa mooy kilifa yoon wi moom la sëñ Touba dénk yoon wi moom la dénk tuubaa te li ko sëñ Touba dénk ñëpp xam nañ ne sëñ Muntaxa ngi ciy def ndax bëgguk sëñ Touba ci lay xëy ci lay gont ci diggante jàng ak jàngale ak jaamu yàlla ak taxawu néew ji doole yi loolu moom ku wax dëgg xam nga ne sëñ muntaxaa ngi ci te jëkkewu ko bi mu nekkee xalifa da caa nekkoon tarbiye ci boppam ba nga ba ba ba ba nga xamante ne si jéggi na dayoo sëriñ Touba yàlla dogal mu door a nekk ab xalifaam kon bokk yi li ma leen bëgg a wax mooy sëñ Muntaxa du président de la république sëñ Muntaxa du premier ministre sëñ Muntaxa du ministère de l'intérieur sëñ Muntaxa du président assemblée nationale sëñ Muntaxa fi mu toog ay carte tegu ko fi sëñ mun Muntaxa diine la fi représenté sëñ Muntaxa murid yi la yërif sëñ Muntaxa Touba la jiite te lenn lu ci nekk ne lenn lu ci nekk ne def na ko lam ca war a def murid yi mu sañ digal mi ngi leen di digal di leen tere ñi nga xam ne digalu leen it e, waru yëlifu leen it mi ngi leen di laabire kon nag sëñ mun taxaa wut akub état dara te li ko war ci réew mi mi ngi koy def li ko war ci diine ji mi ngi koy def ku génn aw xeet nag yaa génnu xeet waaye doone ëmma fu ma ko roye ëmma ku ma ko jàngal ma di leen wax nag ne leen coow lu bari lii ci internet bi ci politique bii ñu taxaw naan na sëñ bi wax na sëñ bi wax na sëñ bi wax loolu ñu koy wax ñëpp ñu ngi ci ak réer ndax sëñ mun Muntaxa wuteeluñ ko ci carte te carte mënu ko fee jële yàlla la fi nekkal nekkal fi jullit yi taxawu leen ci waxtasimu bi hablillahi jamihan wala tafarraqo ak innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ñi naan na sëñ Muntaxa wax jubluwuñ sëñ Muntaxa wax xam nga lu ñu bëgg liñ bëgg sëñ Muntaxa wax ko nañu ko waxal sëñ Muntaxa nekkul ci cadre boobu ndax bu ñuy folli buur duñ ko folli moom te lu buur di am da koy am te kuy rey buur teggi ko kon ñun ñii moom li ñu moom ñoo war a sàmm suñu kilifa gii respecté ko ndax bu ñu ko respecté keneen du am aspect pour am ci sëñ Muntaxa baat da koy neex rek mu wax ca kaw mu neex ko mu wax ci suuf loolu décision la waaye du force bu ko nit ñi di forcé ndax bu dee murid yi waruñu koo digal ndax mooy seen yit bu dee ku la kum li it amoo sañ-sañ ci moom te bu waxoon tey jëme ci beneen côté ñu dal ci kawam na ni mu ko waxee waru koo waxee jël ko nag di ko këll këllee na ko ne ko ndaw moom kooku deesu ko mën a bàyyi mu jàll moo tax message boobu mooy li nga xam ne moom la ñuy tëjee ci lii ñuy wax ab murit na nekk fa mu nekkoon wax ju ne nag da ko dégg te ku nekk murit yi sa bopp nga ko nekkal nekkaloo ko sëñ Muntaxa ndax yaa gis ci sëñ tubaa la nga bëgg dem di ko wuti te bàyyi sëñ tubaa taxul yoon wi fay bàyyi sëñ tubaa taxul yàlla nangu cër bi bàyyi sëñ tubaa yi taxul sëñ mun Muntaxa Mbàkke mii cër bi ko yàlla jox mu jox ko ko te xam ngeen ne nit ku fees del la yërmande la ndax jamono jii mu tollool lu ne mi ngi koy dégg bang bang bu nekk nit a ngi koy bang bang ci kam waaye mën a muñ ne suuf moom lay def mën a muñ ne suuf amuk taalibe lool te yéene ñëpp jàmm moo tax kenn gisul ab yëngutoom te yàlla nañuy ab yëngutoom wump ci dara ji sëñ Tuubaa kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon ci waajtaayu màggalu Daaru Xudoos ci taarixu Cheikh Mamadou Moustapha lu ci jub nag suñu borom lu ci dëng ñun la ñoo ngi jégalu nag képp ku ci dégg loo xam ne si waroo koo dégg te xam ne làmbatu rek ak yéene lañ ci am noonu fi ñu teg suñu tànk doon ko teggi bu mukk ndawal sëñ Tuubaa lañ ci sëñ Tuubaa la ñuy xëy ci la ñuy gont boole ko suñu liggéey jaamu yàlla jàng alxuraan jàng ci xasida yi sëñ Tuubaa yi téye sunu làmmiñ ci sunu yoon nekkul in nuridu inal islaaha mastataxtu ma tawfiqe ila billah alayhi tawakkaltu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa fi amaanillah a bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul